salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees ci kàllaama wolof. alors ba léegi nag ñoo ngi ci saison huit bi tey nag moo nekk suñu ñeenteeli épisode ci saison bi alors saison bu nekk nag en général dañ ci faral di dugal ay épisodes yoo xamante ni ah, dañuy dalal ñi nga xamante ni dañoo créer ay mbir yu bees maanaam ay sénégalais yu jëmmal ay mbir yoo xamante ni dafay jëm ci wàllu xarala yu bees yi ki ñuy dalal nag tey nag nag euh, moom dafa créer benn mbir bu am solo maanaam benn maanaam sama turandoo la déjà sama turandoo la comme <laughs> ki ki ma invité woon na euh, épisode bi passé euh, moo ngi tudd nag Ibrahima Ndiaye xam-xamam màcc ci lépp lu jëm ci defar ay application mobile wala ay application web alors Ibrahima nag dafa euh, créer li nga xamante ni mu la jox benn chaîne yu chaîne YouTube bu am solo voilà di jàngale euh, naka la ñuy defaree ay application mobile ak ay application web avec langage Java alors chaîne bi mu créé nag mu ngi tudd Kaidev 221 Ibrahima nuyu nañ la dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech salaamaaleykum salaamaaleykum guys bëggee naa leen bu baax a baax a baax di nuyu kenn ku si nekk ci turam ak santam mhm. di leen wax daleen ak jàmm si seen émission Kaay Tech alors wolof Tech pardon ah non benn la <laughs> non non benn la Kaay Tech wolof Tech non yëpp benn la yëpp benn la complètement Kaay Dev <laughs> <laughs> exactement ah kaay dem ah moo yóbbaale. ko tàmm <laughs> xam naa ne xam naa chaque jour booy enregistré rek kaay def 221. kaay def 221 waaw gis nga kaay def bi ñëw kaay def ma ne ko kaay teg quoi de toute façon teg wolof teg ñu fas teg ci technologie bi. waaw exactement non yaa ngi def ay rima. <laughs> ñu dem donc ci euh, sunu euh, su sunu épisode tey bi ma naan euh, les tutos yi nga xamante ni moom la ñuy hmm. wax en wolof pour jàngale Java. alors les amis comme nag jamono ji ñu toll nii fii ci Sénégal dañoo nekk ci période hivernage euh, yéen ngi am ci fond sonore bi ay taw ay dënn euh, pour fàttali ñu nawet bi aussi te nag benn expérience bu bees la ñuy dund man ak sama xarit bi Ibrahima euh, je pense que moom laa ko njëkk a dundal donc expérience bi da leen di plonger ci environnement boobu noonu maanaam nawet bi ñoo xam ne ñu ngi période hivernage fii ci Sénégal d'accord allez expérience d'écoute bu bees la dañ koy savourer bu baax baax incha allah j'espère que vous allez adorer aussi fond sonore musique bu bu ndaw bi daw ci suuf aussi allez on alors Ibrahima avant juste sax ñuy commencer épisode bi euh, hmm. déjà pour audit auditeurs yi xam yow yaay kan est-ce que mën nga ñu wax kan mooy Ibrahima Ndiaye ak nga wax ni aussi tuuti ci sa jaar ci sa jaar ok alors gars man Ibrahima Ndiaye laa tudd euh, je suis ingénieur en génie logiciel de formation euh, di pratiquer métier développeur depuis bientôt sept ans léegi. Euh, expatrié la maa ngi liggéey fii ci France pour benn entreprise bu ñu naan Concerto. donc euh, mu nekk benn société de service mooy liggéey pour ay clients yoo xam ne ñoo ngi yëngu ci wàllum euh, assurance. Mhm. donc euh, maa ngi France fii depuis quatre ans maintenant. alors si sama jaar jaar man. Casamance la Casamance laa jàngee fa laa jàngee bi amee sama bac bu ma amee sama bac si laa ñëw Dakar donc pour commencer sama formation professionnel en informatique Euh, jaar easy mais au début maa ngi inscrire en réseau informatique donc après deux ans de réseau informatique ma am sama première expérience en entreprise maa ngi ko defee woon CETIC euh, Dakar nekkoon ci benn euh, startup bu CETIC incubé woon ñu tuddee ko Daris Consulting mais Euh, nuyu bu baax waa Daris Consulting aussi donc ci foofu noonu la sama amour en programmation euh, juddu donc euh, le fait que may daje ak yeneen développeur di xool ñoom ni ñuy liggéeyee ak yooyu noonu yëpp mhm. sachant que déjà bu ñuy def réseau informatique ñoo ngi doon def lépp la nga xam ne langage de programmation la mhm. donc j'étais bien là-dessus mhm. et réseau aussi j'étais pas mal j'étais très bien même en réseau moo tax bu ma ñëwee di wax sama professeur réseau bi ne ko damay changer filière pour dem def programmation daf ma mais yow yaa ngi yàq <laughs> bah oui c'est sûr. <laughs> mais mi ngi noonu mais amouru programmation bi en tout cas ca foofu la juddoo. Uh-huh. Euh, ma bu ma delloo Easy nag euh, sama licence ma ñaan leen pour ma def euh, licence en génie logiciel ndax ma mun continuer sama cursus ci loolu noonu. donc au final si le directeur bi accepté ma am sama licence en génie par la suite def sama master 1 donc mais bu may commencé. commencé def sama master 1 ak sama master 2 maa ngi doon liggéey en entreprise déjà nekkoon ci benn entreprise bu ñu ne système area network foo xam ne def naa fa deux ans et demi et euh, voilà donc euh, sama master bi man cours du laa ko defee donc euh, de 8 heures à 17 heures voire 17 heures maa ngi woon en entreprise donc à partir de 18 heures ma nekk easy di jàng ba 21 heures voire 21 heures 30 22 heures donc euh, noonu laa jàppee woon sama deux années yoo xam ne moom laa doon def sama master muy master 1 ak master 2 ba nu ma soutenir am sama diplôme ingénieur en génie logiciel donc euh, naka noonu la sama euh, en 2019 laa am benn proposition ak benn entreprise française pour ñëw liggéey fii ci ci France ak ñoom donc euh, donc depuis 2019 maa ngi fii ci France di liggéey en tant que euh, développeur consultant en informatique. ok donc euh, développeur full stack Java Angular mooy samay spécialité quoi. ok <laughs> Java Angular voilà ça c'est sûr yow sama mbokkum développeur Java <laughs> ah ouais alors ah. je sais que jaar-jaar bi am na solo bu baax a baax ok mu koy fàttali rek fàttali moom gars nañ tubaab bi nee na la répétition est pédagogique. à chaque fois jaar-jaar bi dafay am solo parce que danañu permettre dina permettre aussi sénégalais yi ak jeunes yi ñu xam ne mën na nekk ci vois kenn ku ci nekk mm. rek xam naa ne am nga sa jaar jaar bopp mais aussi mën nga inspiré wu ci jaar-jaar yi ñeneen ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo fi nekk n'est-ce pas alors loolu moo tax nag ñuy jaar-jaar bi euh, ñu koy laajte à chaque fois ku fi ñëw rek ñu laaj la fan nga mm. jaar voilà ñu expliquer ñu et je pense que jaar-jaar bi aussi am na solo fait ci Casamance la ba mm. ba ba ba ba France quoi ba Paris quoi exactement. <laughs> alors Ibrahima dañuy dugg directement nag ci li nga xamante ni tey euh, moom nga mhm. moom nga indi moom nga créé parce que man bi ma ko découvrir ne euh, yàgg na yàggul tu vois euh, waxtaan nañ ci sax déjà avant nga avant nga koy lancer tu et je mhm. pense que. Euh, nekk na mbir boo xamante ni lu am solo la alors du ma sax nekk ci détail ci biir mais dama lay bàyyi yow nga wax la ko sa bopp lan moo la poussé euh, ba nga créer sa chaîne YouTube bi ñuy wax KDF 221 di partage sa xam-xam ci wàllum développement Java. alors la moom mbëbët euh, création chaîne bi dama koy wekk ci ñaari mbir. d'abord euh, comme ni ma ko expliqué woon rek donc dama ne la meilleure manière donc euh, de consolider ses acquis c'est d'abord de partager avec les autres donc ci partager yow sa connaissance boo xam ne moom nga am donc si ngay gën a consolider la nga xam ne yow am nga ko en temps si ngay jàng parce que plus ngay jéem a jàngal ñeneen si xam ne yow am na ay zone d'ombre ya nga xam ne foog nga éclairer ko pour yow nga mën a monter en compétence comme ça yow savoir bi nga xam ne moom nga am envie transmettre nga transmettre ko ak ñoom donc loolu noonu xam ne ma mbëbët euh, euh, de manière logique sama sama création chaîne bi mm-hmm. donc mais mu am beneen partie mm-hmm. ba nga xam ne c'est beaucoup plus personnel mais je préfère partager ça avec vous ah donc euh, <laughs> exclusif ñoo ko am kon <laughs> tey <laughs> exclusivité bi yow yaa ko am voilà donc euh, man je suis bachelier orienté donc euh, en 2012 mhm. donc euh, Sénégal dafa amoon problème bu ñu bu ñu ci amee bac dafa amoon ñu bëri ña nga xam ne orienté wu ñu leen ci université publique yi ok naka noonu ci la donc gouvernement bi jëloon décision orienté ay bachelier mhm. ci université publique yi ci université privée yi pardon privé yi man mhm. sens boobu noonu laa am donc ñun nekk première promotion ba nga xam ne ne orienté nañ leen euh, euh, ci euh, université privée donc man boo xoolee mhm. gouvernement Sénégal maanaam sénégalais seen bopp du ma wax sax état mais sénégalais yi si bopp ñoom ñoo fay sama jàng donc depuis première année bi nu ma amee sama master donc yàlla def tey ma jógee Sénégal liggéey naa Sénégal donc cotiser naa impôt foofu noonu <laughs> bah oui ça c'est sûr <laughs> exactement mais je pense que c'est pas suffisant par rapport ak la nga xam ne moom la Sénégal def ci man donc tey su ma jógee Sénégal ñëw France fii nii di fi liggéey di participer à, euh, à la société française donc man je pense que ni euh, am na loo xam ne war naa ko delloo Sénégal donc par rapport ak lépp loo xam ne maa ngi koy jàng fii ci wàllum xarala yi maanaam technologie de l'information et de la communication plus spécifiquement dans le domaine des développements d'applications de logiciels ma partagé ko ak ñëpp ña nga xam ne euh, ñoo ngi biir euh, Sénégal ba kenn ku si nekk rek mun def benn monte en compétence ña nga xam ne ñoo ngi ci métier bi mais aussi ña nga xam ne xamuñu métier bi ñu mun découvrir métier bi su leen neexee aussi suivre yi mhm. a nekk ay développeurs donc ñaari mbir yooyu noonu. ñoo mhm. euh, mbëbët sama création euh, chaîne bi. am na <laughs> solo trop am na solo te je pense que. Euh, patriotisme dëgg la tu vois euh, Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk tu vois dem ba bëri na ñoo xamante ni mën nañoo dem à l'étranger tu vois wala sax nekk ci mhm. biir Sénégal te duñ euh, duñ sentir na ñoom sax am na lu ñu war a def pour seen dëkk quoi donc li nga xamante ni sa dëkk jox na la ko yëpp tey bokkul delloowee je pense que mhm. nekk na loo xamante ni mbir mu baax la nekk na loo xamante ni man je pense que Sénégal yëpp mun def leneen lu dul rafetlu ko et man mi déjà kontaan naa ci trop déjà voilà exclusive di ma jox ni neex na ma trop quoi franchement <laughs> alors je pense que Ibrahima yow tamit euh, euh, bokk nga euh, ci nit ñi nga xamante ni gëm nañ ne kàllaama wolof mën na jëriñ nit ñi pour mu nekk benn langue de communication wala langue d'apprentissage maanaam kalaama boo xamante ni mën nañ ci jàngee bépp xeetu xam-xam alors lan moo la poussé yow euh, personnellement nga choisir wolof bi euh, comme euh, voilà comme langue bi nga xamante ni moom ngay joxe say xam-xam bi nga xamante ni moom nga am ci wàllum développement. exactement donc man dafa am benn constat ba nga xam ne ci laa ko njëkk basé wu donc constat ci boo xam ne man ci laa ko basé wu mooy durant mes années de formation donc depuis première année ba nu ma amee sama master. Euh, dañ doon am ay groupe de travail des fois da ngay nekk ak say xarit ci benn classe mais après pour ñu comprendre yenn concept yi pour ñu comprendre yenn notion yi dañ ciy am problème mais ma seetlu benn mbir ñu bëri ña nga xam ne bu ñu nekkee woon classe euh, ñu expliquer leen benn concept wala benn notion ci programmation du ñu comprendre bu ñu génnee ñu posé ma question bi man ma expliquer leen ko en wolof dañ koy jàpp dañuy comprendre dañuy ne ah ok donc euh, ci noonu maa ngi ciy nuyuwaale sama benn xarit bu ñuy ne Ilimane Dia ñu bokk mu nekkoon sama promotionnaire donc euh, nekk foofu noonu ci Sénégal di liggéey ci in touch mhm. donc euh, moom aussi tout le temps loolu la ma doon wax ne mais Ndiaye man dama am benn problème man su ma nekkee classe du ma comprendre dara mais saa yu ma nekkee ak yow nga expliquer ma xoolal affaire yi dafay leer sama bopp donc benn instant j'ai cherché un peu le pourquoi le pourquoi bi nag mhm. euh, c'est facile parce que tey dafa mel ni tey nga jël benn xale nga expliquer ko en wolof la nga xam ne xewoon boo ko expliquer en wolof la nga xam ne xewoon na même su fekkee moom bu nga koy expliquer loolu noonu objectif première du woon jàpp mm-hmm. ko. Mm-hmm. mais su demee taxaw feneen ñu ne ko mais saa waay kële la la la expliquer automatiquement daf siy jaaraat. exactement donc mémoire bi day gën a liggéey su fekkee yow yaa ngi utiliser sa langue maternelle wala yow sa langue boo nga xam ne mooy yow moom ngay làkk couramment. mémoire bi automatiquement dafay activé wu par rapport ak lakk boo xam ne tey dangay ngay toog classe nit ki expliqué la la nga xam ne mooy xewoon deuxième guerre mondiale du mu def ci dégg film ne doo <laughs> mais boo xoolee tey mhm. histoire u Talatay de fait nit yi di ko mhm. raconté ci olof kenn ku si nekk di ko jàpp mhm. automatiquement da koy jàpp doo ko fàtte te day tax yow compréhension bi euh, gën a euh, gën a jàll quoi donc pour une meilleure approche pédagogique je pense que utiliser notre langue wolof utiliser suñu kàllaama dafay nekk la nga xam ne day faciliter assimilation bi loolu noonu euh, c'est bien. Mm-hmm. mais léegi fallait que nga am fitu def ko. ça xam nga. Mm-hmm. fit bi nag mooma ah, man yow laa ciy remercier quoi dëgg yàlla. <laughs> non dëggal dëggal dëggal yow yaay pionnier bi xam nga yaay pionnier bi yow yaa poussé affaire bi poussé bouson bi. au final ma ñëwoon gis sama jabar ma ne ko. Mm-hmm. ok mais soxna si yow man instant bii nii de. Euh, euh, foog ma créer chaîne bi maa la ko doon expliquer depuis ay moment mais voilà au final dama siy jàll quoi. mais tout le temps damay seetlu ne ki boo expliquer en wolof donc si la nit yi di gën a comprendre si la affaire yi di gën euh, convivial xam nga mu nekk benn genre échange entre ñaari nit yoo xam ne ñooy làkk benn làkk ci par rapport ak benn mbir day gën a yomb mais olof laa ko bëgg a defee. mu ne ma hi est ce que loolu noonu dina dina dina attirer ñit ñi. ma ne ko nag en réalité quoi. pourtant dina dox quoi te déjà am na sama benn promotionnaire. Mm-hmm. Euh, El Hadj Ibrahima Diago. Mm-hmm. donc wax moo ngi def liggéey ci podcast yi te euh, je pense que gars yaa ngi koy déglu bu baax a baax donc mm-hmm. félicitations à toi xam nga chapeau ah, merci. et aussi merci à nous <laughs> merci <laughs> exactement et donc je me suis dit ok euh, mm-hmm. vas-y go je mm-hmm. fais ça en langue wolof et après on verra ce que ça va donner donc euh, loolu noonu moo nekk la nga xam ne moom moo yokk fit ba au final ma choisir làkk bi ma ne xaaral ma mm, expliquer non man bi ma ko gisee j'étais hyper Euh, mm-hmm. dama kontaan trop trop trop trop bi ma ko gisee parce que dama ne. Euh, mm-hmm. en fait en fait euh, man du ma ne sax man maa njëkkee leen ko parce que àdduna bi ñëppay xalaat. tu mais li ma neex rek mooy que ne am na sama mbokk bu ñëw jàpp ci combat bi. tu vois exactement parce que je <laughs> pense que tey man j'aimerais voir yeneen podcast yoo xam ne dañuy juddu même bu ñu waxul ci affaire informatique sax parce que nekkul informatique rek moo fi nekk. ñu wax ci mhm. yeneen affaire wax ci géographie. Mhm. wax ci euh, astronomie wax ci yeneen domaines yoo xamante ni ci science la wala nekkul ci science wala droit parce que tey même droit sax gars yi war nañ ci def ay podcast yoo xamante ni wolof la parce que ni ñu koy bindee dafa compliqué tu vois. Mhm, alors objectif bi mooy lépp loo xamante ni jàpp nañ ne xam-xam la. te mhm. nit ñi foog ne lu compliqué la war nañ ko mhm. mën a traduire ci suñu langue yi pour mun ko mhm. joxaat askan bi comme li nga waxee léegi nii ni nga ko euh, waxee léegi nii ci ginnaaw dafa am solo bu la askan bi joxee benn mbir yow juddu nga tey gis école yi judd ñu dugal primaire bi ñu la dugalee primaire école boobu noonu mais oh, en fait ñi gouvernement bi moo fay enseignants yi ba nga jàng tu donc loolu lépp tey da nga ko fekk donc je pense que tey boo demee ba am xam-xam ba jàng nasaraan ba sa bopp bu ubbeeku ba nga am xam-xam parce que aussi mhm. nekkul ne euh, je pense euh, ñëpp ñoo am chance jàng jàng français jàng nasaraan tu vois du ma ne chaque chance du ma ne chaque chance mais mhm. ñëpp ñoo ko mhm. jàng tu am na ñeneen ñoo xamante ne leneen leen jàng wala am na ñoo xam ne sax dugguñ école tu vois alors te tey boo xoolee Sénégal li may wax faral di wax cinquante quatre pour tu vois. Mm-hmm. non exactement. est ce que dañoo war a wax ne 54 pour cent yëpp amuñ xel donc voilà ainsi dañuy xalaat. donc ñun ñi nga xamante ni peut être ñun peut être suñu xam-xam màcc na ci beneen wàll. muy affaire mm-hmm. technologie ak yeneen ak yeneen. dañoo war a mm-hmm. delloo njukkal ñu comme ni nga ko waxee indiwaat traduire leen xam-xam bi nga xamante ni. for for nañ ko ci àll bi quoi. et je pense que euh, mbir mu noobu la quoi. non Alors, je suis tout à fait d'accord ak yow en fait dama siy teg rek mhm. tey boo xoolee ci internet bi tey di nga ci fekk ay tuto sur n'importe quelle langue quoi ci wàllum xarala yi bees yi quoi di nga ci fekk lépp la nga xam ne espagnol la gars dañ ko ciy làkk di si def ay tuto di jàngale xarala yi bees yi di nga ci fekk lépp loo xam ne anglais la di nga ci fekk lépp loo xam ne donc euh, chinois la di nga ci fekk lépp loo xam ne indien la arabe yi sax bon <laughs> suñu marocain yi nekk fii à côté léegi dañuy làkk arabe si seen euh, yenn vidéo yi donc euh, man je je me dis pourquoi pas ñun aussi ñu mun euh, démocratiser loolu noonu en plus boo xoolee y a pas mal de reconversion ya nga xam ne ñoo ngi am ay nit ya nga xam ne ñoo def beneen métier gis métier développeur bi te mosu ñoo jàng programmation mais de fait que ñu mun am benn formation ba nga xam ne sous forme de tutoriel ak mentoring gars yi mën a prendre en en en en charge loolu noonu finalement changer métier wala ka nga xam ne amuloon métier mu rester focus ci tuto ak yooyu noonu au final euh, développer propre entreprise am mun intégrer benn entreprise évoluer ko mhm. ci kanam tuuti sax man dinaa am ay yu ma wax ay yu ma wax parce que man xam naa la bu baax yow sama promotionnaire mu ngi fi easy tu vois voilà <laughs> dinaa am yu ma wax ci kanam tuuti quoi mais na a denc ba ci kanam tuuti <laughs> Euh, <laughs> alors <laughs> eh eh alors je sais que euh, euh, mm-hmm. jàngale aussi transmettre mm-hmm. say xam-xam partager say xam-xam mm-hmm. ci langue olof bi aussi nekk na loo xamante ni yombul su ma waxee sax d'une manière générale partager xam-xam sax ci boppam moo yomb waxuma nag après na nga utiliser langue wolof bi pour partager xam-xam bi nga xamante ni ci wàllum xarala yu bees la alors yow ban pédagogie wala ban façon njàngin nga jël pour permettre ñi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan ñu mën a comprendre euh, li nga xamante ni yaa ngi koy jàngale te ñu bëri sax gis ne dafa nekk loo xamante ni dafa jafe maanaam développement. Mhm, mhm. donc man euh, li may wax comme sànq yaa ngi koy souligner nga ne même ci droit bi nit yi war nañ ci mën a jàng lu bëri. mais droit damaa jàpp ne benn logique la maanaam boo amee benn logique nga dëgg ñu liiral la benn benn partie wala benn article ci euh, code pénal bi yow boo amee benn dëggin automatiquement di nga comprendre kii fu muy waxee après nag la mooy des mooy définir périmètre yi donc man lan laa d'accord mooy tey par rapport ak euh, benn euh, développement ma jox la benn exemple exemple man euh, déjà dama teel a intégré entreprise donc bu may def licence fekk na maa ngi woon en entreprise maa ngi woon ci benn entreprise bu ñu ne Opti Finance Solution ñu doon développé ay euh, application ci lépp la nga xam ne wàllum finance la ak comptabilité mais dañ doon utiliser yenn concept poussé ci langage de programmation Java bi pendant ce moment là man à l'école j'avais pas encore commencé à avoir ces notions là donc je savais le comment faire maanaam nan la ñuy defee benn mbir xam naa ko donc loolu laa doon def mais bu ma ñëwee ba commencé sama master 1 master 2 ñu commencé gis concept boobu noonu concept yooyu nga xam ne moom laa doon utiliser en entreprise les choses sont devenues beaucoup plus claires la moo waral loolu parce que je savais comment faire mais je savais pas pourquoi faire donc loolu moo waraloon sama décision ci euh, yenn yenn yenn notion yi wala yenn concept yi wala yenn solution yi ma war a implémenter man mhm. comme xam naa benn mbir nan lañ koy defee donc dama koy defee noonu mais est-ce que ni ma ko defee noonu mhm. c'est la meilleure manière de faire donc le fait que ma nekk master 1 master 2 di jàng concept yi ak kii loolu dafa ma permettre ma gën a mën a évoluer en entreprise pour xam ci ban cas d' utilisation laa war a mën a implémenter telle solution de telle ou de telle manière. donc man ci sama chaine bi. Mhm. lan lay prioriser. Mhm. mooy le pourquoi faire. foog ma won la lan moo waral nga war ko mën a defee nii looloo waral suma tuto yi mhm. tout le temps damay jëkk def benn échec exactement donc damay def tout euh, mhm. code programme bi programme bi échec après mhm. ma ne la ok léegi lii boo gisee mu échec lii ak lii ak lii ak lii ak lii moo tax pour solution bi mën a am solution bii nii am na solution bii nii am na solution bi nii tamit am na mais la meilleure des solutions mooy boo combiner concept bi concept bi concept pour mën a joxe au final résultat bii nii quoi donc man tout le temps damay jógee ci la pourquoi faire pour ma woon la le comment faire et comment mieux faire. donc loolu mooy sama concept pédagogique ba nga xam ne ci loolu noonu laay avancé. incha allah non non non non mais Ibrahima da jaar en fu nu mu tudd sax école normale wala. non ma raconté la benn anecdote encore ah. en fait euh, man bu may nekk collège déjà dama amoon benn groupe de travail. ok groupe de travail bi bokkoon naa si ñoo nga xam ne ñoo ko doon animé. waaw ñëw lycée. ma amaat groupe de travail ma partagé ko woon ko ak yom Boubacar Gueye yom Moussa Sy yom Boubacar Sidibé bu fekkee ñu bu baax a baax ma nekkoon fa xam nga nekk nekk genre professeur gars yi ma doon wooyee Ndiaye philo xam nga ak yu kenn xamoon donc des fois dama doon leen expliquer leen exactement man lan laa comprendre par rapport ak lan la professeur bi wax ak la nga xam ne jot naa ko def ci ay recherche donc bu ma ñëwee ISI tamit sama formation professionnelle amoon nañu suñu groupe de travail ma doon implémenter ay solution di leen woon ak yooyu noonu donc Euh, au fil des années si la gën a mën a développer sama méthode pédagogique pour xam exactement nan laa war a mën a joxe euh, connaissance bi ba nit ko mën ko recevoir sans problème en plus euh, man nekk naa professeur en langage de programmation Dakar foofu noonu donc maa ngi doon jàngale ci benn école bu ñu nee HEM donc institut des des autres études de management Euh, man defoon fa pendant une année au début c' était juste pour remplacer benn professeur mais au final euh, cours bi nu ma ko doon joxee élèves yi dañoo kontaan ba euh, directeur école bi woo ma mu yokkal ma ñaari classe donc <laughs> <laughs> ah oui c'est cool ça c'est vraiment top exactement ah euh. donc au final ma ne voilà donc euh, en plus mu nekk loo xam ne man dama ko bëgg donc. Euh, voilà donc loolu mooy pédagogie boo xam ne man moom laay moom laay développé ci biir chaîne bi. non c'est top pour ñëpp mën a jot ci xam-xam bi. c'est top c'est top c'est franchement top man seetaan naa vidéo yi. xool naa tuto yi et j'ai vu que ne am na pédagogie loolu moo tax sama indication bi parce que pédagogie bi dafa am solo bu baax a baax parce que au fait su fekkee da ngay def vidéo la du yow. tu vois mais parce que pour ñi lay déglu la te ñi lay déglu aussi mm-hmm. fokk nga xam euh, am benn am benn xam-xam bu ndaw te aussi ci wàllum naka nga mën a transmettre savoir bi ba ñoom ñu mun ko capter mun ko xam mm-hmm. ak exemple yi ak tout ça mais franchement j'ai vu que c'était euh, vraiment naa sax bëggoon naa xaar sama anecdote bi ba ba pare door ko wax sax mais fokk ma wax ko léegi nii quoi parce que non parce que Izzy euh, à chaque fois uh-huh. dama leen gis uh-huh. li ma njëkkoon impressionné ci ci Ibrahima ci yow moo nekkoon que ni mm-hmm. alors booy en fait hmm. am xam nga nit buy wax lu bëgg da nga koy sentir ci bëtam yi <laughs> wax ci xol bi la ko tibbee tu vois alors bu ñuy wax ci affaire surtout nag li ma gën a marqué mooy bu ñuy wax ci affaire Java wala Angular <laughs> alors moo uh-huh. tax bi da ngay def euh, yaa ngi spécialisé du Java Angular bertuma quoi tu ñuy wax ci benn langage ñuy wax ci Java wala mm-hmm. ak euh, clarté bi nga xamante ni nag ci nekk à l'aise tu vois. Mm-hmm. c'était mm-hmm. extraordinaire et euh, loolu moom je ah, je témoigne dama koy témoigner ah. et il fallait que ma wax ko quoi. <laughs> mais am na yeneen nag am na yeneen yu nekk ci biir après quoi. <laughs> ok amul benn problème. <laughs> alors gis nañu aussi que ne euh, ci diir bu gàtt rek. def nga ay mhm. vidéo yoo xam ne yu bëri la tu vois man mhm. bi ngay lancé podcast bi ah, mhm. franchement man daf ma romb ah, affaire bi fef la ma def quoi <laughs> parce que bi ngay lancé podcast bi ak bi may préparé épisode bi pour ñu defandoor épisode bi tu vois ah mais mais mais c'est très vite après man j'ai vu benn vingtaine de vidéos ma ne waaw tu <laughs> nekk Ibrahima sa secret parce que xam naa ne affaire yi yombul alors secret bi yomb na xam nga mooy lan mooy dama koy jëlee ci benn exemple euh, tubaab yi daf ñuy ne euh, quand on aime on compte ouais ça c'est vrai ça donc man wax dëgg yàlla konteewu ma vidéo yi ko dama doon def rek di dugal su ma defee sama benn vidéo ma door samay montage après dugal def samay vidéo door montage dugal donc chaîne bi boo xoolee maa ngi koy lancé le 16. donc en trois semaines man ma ne ok xaar ma def benn inventaire ma dugg di compter vidéo yi gis ni ki maa ngi dix-neuf vidéo ak yi kenn xamul ma ne mais non en trois semaines jot naa fi def lii nii yëpp dëgg yàlla nag ah dëgg yàlla uh-huh. donc euh, loolu la donc amour ba nga xam ne man am naa ko déjà ci développement loolu dafay tax man su may def sama vidéo yi du ma ko du ma ko jàppee comme benn liggéey donc c'est même pas du travail benn passion la ba nga xam ne man dama koy exprimer donc moo tax suma koy def je suis à l'aise là-dessus te temps moo koy consacrel donc euh, dama jàpp ne benn benn benn moment de fun la ak samay gars yaa nga xam ne peut-être bëgg nañ monter en compétence ñenn ñi bëgg nañoo découvrir métier euh, développement bi donc dama koy def ak aisance bu euh, gën a gën a yaatu quoi donc loolu moo tax comme yooyu noo ko expliqué les sànq dañoo mmh. nekk classe jàng après ñu génn taxaw ci petit di waxaat ci programmation bi kon man moom rek laa ko jàppe <laughs> donc loolu exposé actuellement. ouais ouais <laughs> non mais maa ngi maa ngi nuyu wàllu gars yëpp quoi am na gars yu ah, ah. bëri yoo xamante mhm. ni euh, am ñoom Khadim tu vois ay ñoom Yves. ay ñoom euh, Jean Yves. Jean Yves exactement tu vois. Jean Yves Marie Ndione aussi. voilà exactement Abi Thiam. Abi Thiam ak ñoom ay <laughs> Elman. yi nga xamante non mais bu fekkee ñu ngi déglu ñu ngi leen di ñoom ñëpp ñu ngi a baax macha allah quoi kon man loolu rek laa transposé fii donc classe après génn waxtaan ci technologie bi fii tamit liggéey après génn ñëw waxtaan ci technologie bi quoi mais je pense que ñun ah. mm-hmm. mm-hmm. <laughs> boobu moom lañ transmettre tey jii nii yaa ngi sa mm-hmm. yaa ngi def sa chaîne bi tu vois euh, man aussi maa ngi def sama podcast bi je pense que c'est une même chose benn bataille lañ am tu vois

li mhm. actuellement euh, ci sa biir tuto yi nga xamante ni yaa ngi koy def ah, li ci mhm. ràññee Java la mhm. xam naa ne nag est-ce que euh, mën nañoo xaar ci yow nga indiwaat yeneen langage yoo xamante ni di ko jàngale euh, ñi nga xamante ni ñu ngi lay topp à chaque fois sur YouTube bien sûr bien sûr donc déjà boo xoolee chaine bi nu mu tudd chaine bi mi ngi tudd Kay Dev donc Kay Dev Dev développement de manière globale mu nekk benn invitation boo xam ne dama ci woo ñëpp ña nga xam ne xamuñu métier bi wala tuuti la ñu xamee métier bi ma ne leen kaay leen ñu développé mais boo wëlbatee tuuru chaîne bi tamit daf lay jox dev kaay mooy yow développeur bi kaay ñu waxtaan ci programmation bi donc mu nekk deux invitations par rapport ak deux types de personnes comprendre nga donc man boo xoolee déjà sama parcours euh, Sénégal liggéey naa fa pendant trois ans mais Sénégal euh, euh, comme ñëpp Sénégal li ñuy wax mooy langage bu fa dominé mooy PHP. waaw waaw donc man liggéey naa ci PHP. Mhm. exactement liggéey naa ak ay framework comme yu mel ni Symfony yu mel ni Laravel euh, donc euh, liggéey naa ci HTML CSS euh, liggéey naa ci AngularJS liggéey naa ci Angular jot naa développé ay application ak Swift. donc def naa aussi ay cross plateforme ak Ionic <laughs> donc euh, voilà pour ma yegg si France fii nii mm-hmm. voilà mm-hmm. donc ñu gën a cadré parce que France nii dañuy gën a cadré yow euh, sa zone d'action quoi parce que ñoom dañuy bëgg a spécialisé ci ay mbir spécifique donc euh, man mii sax chance la am ci biir entreprise bi ñu may bàyyi may def ñaari côté di def Angular di def Java en même temps mais ñoom d'habitude dañuy bëgg a yow nga nekk spécial spécialisé wu ci benn benn benn langage de programmation après yow ci loolu noonu lañu lay Euh, jox ay mission ci ay clients nga dem di ko réaliser donc euh, voilà man euh, benn casquette la am mooy jot naa gis ay technologies yu bëri donc looloo waral ma ne ok nañu lancé wu mais bu ñu waree lancé wu nañu commencé ci Java la moo waral ma ne ok nañu commencé ci Java parce que comme na ko expliqué nee nga Java dafa xaw a complexe. gars yi loolu la ñu wax de nee nañ de. <laughs> mi ngi noonu mi noonu. donc looloo waral tey ma ne ok léegi nañ jël Java bi de sorte que lépp la nga xam ne notion la lépp la nga xam ne concept la dinañ ko mun gis ak langage bii nga xam ne moom la ñu wooyee entre guillemets complexe alors que c'est pas du tout complexe maanaam Java dafa laaj benn logique maanaam dafa laaj benn tëggin mais déggin boobu noonu rek ngay développé boo xasee bi am déggin bi rek lépp luñ la waxati ci Java da nga koy mun assimiler looloo waral man ma ne ok damay ko commencé ak Java au début sax man j'en ai parlé avec euh, euh, toi donc waxoon naa la man la ok damay ñëw commencé def ay Java Spring du na si génn fële nga ne ma non léegi affaire yi Euh, man la nag dama amoon doute parce que dama xam ne damay commencé niveau débutant wala damay ñëw rek ma commencé def affaire ya nga xam ne ñooy intéressé gars yu nekk actuellement ci métier bi nga ne ma moom i commencé niveau débutant bi mhm. comme ça gars ya nga xam ne ñoom ñoo ngi liggéey actuellement en entreprise dañu soxla rafraîchir seen mémoire dinañu mun ñëwaat xoolaat euh, yow ban manière ngay joxe euh, xam-xam bi ak nan nga koy expliquer donc mun nañu ci jëlee njëriñ mais aussi ñaa nga xam ne dañoo ñëw pour découvrir ñoom mën nañu commencer wandoor ak yow continuer de fur et à mesure ngay def vidéo moo tax ma ne ok Java bi moom ah, actuellement te Java dafa nekk euh, benn langage ba nga xam ne donc actuellement boo xoolee moom moo nekk première ci top chart yi ci langage yu gars yi gën utiliser mu nekk benn langage ma nga xam ne dafa puissant gars yi dañ koy utiliser bu baax a baax en entreprise te mu nekk benn euh, langage ba nga xam ne boo si spécialisé woo amoo fenn fa nga xam ne yow di nga fa toog te doo am mission wala da ngay chômer donc ma ne ok tey ñun Sénégal suñu waree jël benn mbir nañu jël la nga xam ne moom bokk na ci lu gën a puissant mm-hmm. nañ ko jël ñu def ko suñu mbir de sorte que bu mm-hmm. ëllëgee ak lépp la nga xam ne enjeu développement la ci wàllum xarala yu bees yi ñun dinañu mën répondre présent amul kenn kuy ñëw du nga xam ne dinañu jàngal mbir bi nan lañu koy defee ak yooyu noonu donc euh, euh, loolu moo nekk la nga xam ne donc euh, mën naa ko wax ci langage de programmation ya nga xam ne dinañ ko xaar ci chaîne yi donc ci chaîne bi ñoom dinañu wax ci Java dinañu wax ci PHP dinañu wax ci CSS dinañu wax ci Angular dinañu wax ci lépp la nga xam ne CI/CD la mooy intégration continue ak déploiement continu bi donc containerisation yi ak Docker mhm. Kubernetes yi dinañ ci wax test unitaire yi surtout dinañ ci wax test d'intégration yi <laughs> ah des fois test yi moo gën a sax voilà li implémenter quoi. ah non exactement exactement exactement donc am na notion yu bëri ak ay design pattern ak ay TDD ya nga xam ne donc loolu noonu yëpp bëgg naa ko développer ci biir chaine bi te incha allah donc dinaa si def sama kentulaay kàttan di wax gars yi ñëw leen rek ngeen euh, découvrir donc je pense que vous allez trouver euh, des choses qui vont vous permettre donc de monter en compétence euh, pour gars nga xam ne ils sont confirmés ña nga xam ne nag bëgg nañu découvrir métier bi ñëw leen ñu jàngandoor ensemble donc amul professeur comme ni ma ko waxee amul professeur amul élève juste dañuy ñëw toog kii wax moom lan la xam ci mbir mi kale mën na ñëw mu ne ko man nii laa ko gisee après ñu waxtaan si ñu continuer ko Euh, ça c'est sûr on va approche bi am na solo ak euh, démarche bi am na solo lépp am na solo sa à euh, ni ñu koy defee aussi am na solo bu baax a baax c'est-à-dire commencer au début ak débutants yi après continuer ak ñi nga xamante ni peut-être seen xam-xam gën na pousser ci affaire bi sa à dire da ngay àndandoo ak ñëpp ramasser gars yëpp àndandoo ak ñoom dem tu vois alors man j'avoue que seetaan naa ci ay quelques vidéos yu yu bari ci biir ci vois mais mais mais mais en affaire bi da lay yóbbaale quoi tu vois parce que à la fin tu te dis man yii yëpp fàtte woon naa ko sax man concept yëpp fàtte tu vois <laughs> parce que à la fin da ngay dem ba sax nga ay ci yenn concept yi nii parce que da nga koy soxla a tout moment et c'est eh boo xamante ni koy soxla sans pourtant sax yow nga xam ko quoi tu vois yow nga xam ko exactement en tout cas en tout <laughs> cas merci beaucoup man man mm. premier élève yi laa bokk tu vois maa affaire bi euh, bu baax a baax. gis naa loolu gis naa loolu gis naa commentaire ah je te jure tu vois <laughs> ah. Uh-huh. alors en tant que koo xamante ni aussi euh, yàgg nga ci métier développeur bi maanaam defar ay application ak yu ni mel alors naka nga gisee tey jii nii ëllëgu métier bi euh, ci àdduna bi ci waa métier wu développeur ci àdduna bi waxuma Java kese mais développeur d'une manière général naka nga gisee ëllëgam ci àdduna bi mais aussi fii ci Sénégal. alors man déjà euh, dama jàpp ne l'avenir bi ça va se en Afrique donc boo xoolee statistiques yi nee nañu d'ici deux mille cinquante Afrique mooy euh, euh, nu mu tuddati sax mooy concentré population boo xam ne moom mooy ëpp ci àdduna bi donc d'ici deux mille cinquante donc fu mu nekk nii boo xoolee. il y tout à refaire en Afrique quoi mhm. donc que ça soit ci milieu santé bi que ça soit ci milieu éducation bi que ça soit euh, ci lépp la nga xam ne milieu commercial la par rapport ak ay euh, process ya nga xam ne war nañ ko automatiser de sorte que képp koo xam ne yow soxla nga benn mbir euh, keroog ma jox la benn anecdote dama soxla woon fii benn casier judiciaire donc casier judiciaire bi man balaa ma koy am Sénégal rek xawoon naa dee mais ma soxla casier judiciaire France fii nii euh, casier judiciaire bi deux heures de temps la ma jëlal damaa dugg ci benn plateforme ma remplir samay information euh, quelques minutes après donc euh, wala benn une heure grand max gars envoyé ma sama casier judiciaire ma jël ko dem def samay démarches administratives alors que sama casier judiciaire Sénégal jël na trois jours avant ma koy jot quoi donc boo leen xoolee tey lépp war nañ ko mën a automatiser euh, biir Afrique man je dirais que l'avenir du développement actuellement c'est ça ça va se passer en Afrique parce que en Europe y a tellement de solutions qui existent. Mm y a tellement de de de développeurs aussi qui existent alors qu'en Afrique y a tellement de choses à faire looloo waral boo xoolee actuellement il y a pas mal d'entreprises surtout ay sociétés de services yaa nga xam ne ñoo ngi délocalisé wu di ñëw Afrique. pour mun gagner marché Afrique yi pour mën a développer ay solutions informatiques mun naa si jël ay exemple comme Capgemini wala Atos mi nekk biir Sénégal foofu noonu di regrouper ay ingénieurs yu bëri di développer ay solutions looloo lay won ni donc ñoom déjà ils sont conscients que ni en Afrique il a beaucoup de choses à faire notamment dans le domaine euh, euh, du développement dans le domaine des technologies ouais. donc looloo waral may wax sama gars mhm. ñoo leen ñu jàpp ci mhm. technologie bi parce que technologie bi amul frontière tey boo jëlee n'importe quel domaine mhm. muy domaine géographie muy domaine histoire muy domaine euh, euh, supposons boo nekkee Afrique dafa am fa nga xam ne di nga fa dem di nga fa deng di fa dem mais dangay am fooy yem looloo waral médecins yi ñu si bëri après dañu ñoo def seen stage Europe pour mun a xam nan la ñuy utiliser yenn euh, machines yi pour et cetera mun a attendre ci benn connaissance bi mais loolu ak développement bi maanaam boo nekkee ci milieu développement wala programmation logicielle bi yow amoo contrainte boobu noonu parce que lépp li nga lépp li nga soxla mi ngi ci internet bi soxlawul ngay bouger di jógee Sénégal di ñëw ba fii pour nga ne noonu man yoon ma yokk sama xam-xam. Mhm. parce que je t'assure même technologie yi la ñuy utiliser. waaw ça c'est <laughs> sûr ñëw xam naa ci. Mhm. Euh, euh, léegi léegi. incha allah amul benn problème. Mhm. non mais non li nga wax c'est c'est telement vrai que ni euh, métier bi fi mu toll nii amatul frontière tu vois fépp foo nekk rek mun nga jàng li nga xamante ni moom nga bëgg tu vois li ci des rek mooy pas-pas bi ak gëm-gëm bi. Euh, et je pense que tey comme ni nga ko waxee y' a beaucoup de choses à faire li ñu war a def Afrique li ñu war def Sénégal dafa bëri tu vois bëri na trop te je pense que ressources yaa ngi fi euh, au lieu que ñuy bàyyi ñeneen ñi ñëw di ko def war nañ ko mën defal suñu bopp. alors jeune yi nga xamante ni ñu ngi fi nekk aussi euh, war nañ mën am benn niveau de compétence boo xamante ni bu am solo la tu vois bu bu bu bu mag tu vois parce que au li may wax aussi wax nga ko sànq ci ginnaaw aussi mooy que ne def yomb na développer benn application yomb mais def ko mu nekk application bu baax mu performant peut-être moo jafe tu vois alors donc dimbale aussi population bi dimbale aussi jeunes yi pour que ñu mun a euh, gis ràññee ne application bu performant la nit ñi soxla léegi tu vois c'est mhm. hyper exactement et je pense que yaa ngi koy def ci KIDF 221 loolu moo tax je pense que maa ngi wax gars yëpp nañ dem euh, dinaa def euh, description wu euh, lien wu pod lien wu chaîne YouTube bi dinaa ko def ci description wu podcast bi comme ça képp koo xamante ni bëgg na ñëw ci chaîne bi mun na ñëw voilà mu ñëw directement ci chaîne bi xool vidéo yi nga xamante ni yaa ngi koy proposé c'est hyper hyper intéressant et c'est facile dafa yomb pour nga xam ko. je vous assure que ne il suffit que nga seetaan ñaari vidéo non boo oytu sa journée moom c'est fini da ngay yeggal yeneen yi. tu vois non comme comme série la comme série yi ngay seetaan ci Netflix la ah. tu vois <laughs> exactement lu mu leen di wax mooy ñëw leen si xool quoi en tout cas boo ñëwee xool par rapport ak concept bu may développé par rapport ak benn notion bi ma la war a wax euh, man jàpp naa ni su ma la expliquer notion boobu noonu wala concept bi. Euh, di nga ko comprendre comme noo ko musul comprendre ça comme c'est totalement différent mhm. par rapport ak euh, matière euh, manière ba nga xam ne moom la gars yi di jàngalee actuellement mais mais mais mais gars yi war nañu mais mais <laughs> gars yi war nañu def ay cours UVS uh-huh. war nañu def ay cours virtuels je pense que war nga mën a dugg ci foofu gars joxe waale cours <laughs> ah, def consultance à distance quoi ah, surtout surtout surtout ça parce que ah. damay ne tey ñu bëri ñu ngi jàng ok ay UVS euh, université yi et cetera c'est très important mais développement dafa nekk benn benn affaire bi nga xam ne mot de vie maanaam mënoo yem rek yow ci la nga xam ne moom lañ lay jox école ak la nga xam ne yow moom ngay gis entreprise en tout cas si tu veux être un bon développeur waroo yem ci loolu parce que am na développeur am na un bon développeur quoi ah, te man gars wax dëgg yàlla man un bon développeur laa bëgg ñoom ñëpp ñu nekk ah, quoi ah comme léegi ñoo leen <laughs> voilà ñu xoolaat euh, euh, notion yi ak concept yi dans dans leur profondeur xam nga ma expliquer la exactement affaire yi nan lay doxee ci biir quoi parce que tey déjà boo jëlee benn exemple rek ci notion objet quoi nga ñëw tey euh, ñu war a xool la mooy objet la mooy classe la moo waral yow tey nga soxla classe pour créer benn objet nga war a mën a xam la mooy variable local la mooy variable distant la moy variable de classe nga war a xam la mooy méthode de classe nga war a mën a xam la mooy abstraction abstraction boobu noonu noo koy defee Euh, notion ngay am ci biir par rapport ak héritage bi par rapport ak polymorphisme bi xam nga la mooy redéfinition de méthode la mooy surcharge de méthode yan limite la am par rapport ak ay variable xam nga donc bu doon ceeb ma ne la j'ai l'eau dans la bouche hein non je te xam naa fi mu toll nii développeurs yi xam naa ne gars auditeurs yi déglu instant bi sûrement sax boo ñu ngi wër ñu ngi wër kay def 221 si net bi quoi non mais parce que ça en fait en fait mooy wax léegi rek ça donne vois dafay en fait amour bi nga déjà ni ngi koy waxee nii rek dañuy sentir déjà amour bi quoi tu vois et c'est ça qui est important lépp lay def ci àdduna te amoo ci amour rek donc du dem mais amour boobu nag dañ koy sentir même ci kaddu yi dañ koy sentir bu na variable de classe tu le mec il <laughs> Ibrahima Ibrahima mhm. gis nañ ne aussi ah liggéey nga ci projet yu bëri fii ci Sénégal ak bitim réew tu maanaam mhm. Europe lan nga ñu mën mhm. wax ci différence ah, buy am si ah, sa ñaari expérience yooyu alors euh, différence bi su fekkee wàllum technologie la. damay ne amul différence. ci wàllum technologie. parce que même technologie yooyu fekk Sénégal actuellement technologie noonu ngay fekk fii ci Europe. mooy lépp la nga xam ne euh, donc c'est du Java c'est du PHP avec le framework que ça soit du Laravel ou du Symfony donc boo ñëwee ci Java bi lépp la nga xam ne Spring Boot euh, la nga xam ne ay framework yu tourné autour de Spring ay JPA ak yooyu noonu donc moom ngay utiliser fii je dirais que ci wàllum technologie c'est à peu près pareil en plus man excuse ba la gars yi di wax d'habitude dine non non non Europe la njëkk génn affaire yi egseegul fii wala gars yi xamaguñu ko noonu loolu du excuse quoi parce que mm-hmm. tey internet mm-hmm. ba village planétaire la quoi la nga xam ne moo ngi xew fii actuellement en France gars dañ koy am Sénégal en temps réel d'autant plus que Ukraine actuellement ak contexte bii ñu nekkee Sénégalais boo si jàpp nga ne ko Ukraine xam nga ko mu ne la waaw lii ak lii ak moo xew actuellement <laughs> <laughs> donc ci wàllum développement bi tamit noonu la wàllum technologie man jàpp naa ni amul bu énorme par contre différence bi ci benn mbir la nekkee mooy process yi process yi ko donc Sénégal gars yi nu ñuy développer application wala développer benn solution informatique ak France gars yi nu ñuy développer benn solution informatique loolu mooy différer parce que dafa am ay méthodologie mu am ay concept yaa nga xam ne gars yi dañ koy implémenter mu war la jëlee ci benn cycle de vie logiciel mu yóbbu la ba fin Euh, euh, nu mu di sax euh, finalement produit fini bi. ok ok donc ci loolu noonu ñu mun ci implémenter pas mal de méthodologie supposons tey agilité bi. Mhm. boo gisee tey nan la développé. Mhm. Sénégal am na ñu ngi koy implémenter mais je pense qu'il doit avoir beaucoup plus de coach agile ak ay kii scram yaa nga xam ne ay scrum master yaa nga xam ne tey dinañu accompagner ay équipe de développement de sorte que gars yi dinañu mun respecter process yi yëpp parce que process yi boo ko respecté loolu moo lay jox benn application bu fiable. benn anecdote man Sénégal nekk naa fa di liggéey liggéey naa fa lu yàgg mais entreprise yu ma wax ma bind benn test unitaire saa waay mun naa ko compter. ah oui <laughs> ça c'est sûr ça <laughs> nga donc ñun la lañ doon def. Mhm. mooy dañuy implémenter rek solution bi xam nañ lu ñu war a def implémenter nañ implémenter nañ solution bi testé nañ ko ok dox na donc ça va unitaires yi test d'intégration yi donc découpage euh, fonctionnel bi euh, yow de fait que nga mun am sa benn backlog de fait que yow nga mun a euh, donc implémenter ay méthodologie bon am na ñuy wax méthodologie mais du méthodologie sax en réalité donc concept Scrum bi parce que artefact il y a pas mal d'artefacts yaa nga xam ne ñoo ngi tourner autour de ça donc bu lay permettre nga mun donc euh, di développer ay granularité maanaam euh, benn genre piece of code benn euh, nan laa koy woowee sax benn benn genre mhm. brique de code ba nga xam ne fonctionnel mhm. mhm. voilà sa benn code bu ndaw boo xam ne moom mun nañ ko tester mën def phase de recette yi mun def teneur yi avant muy jàll am production loolu noonu dafay tax yow tout le temps da ngay am benn application bu fiable au maximum en plus fii gars yi dañoo démocratiser métier bi maanaam métier bi tey euh, boo ko naree def da euh, koy def sans problème quoi donc nekkul benn affaire ba nga xam ne c'est extraordinaire alors que defee na Sénégal ba léegi gars yi dañoo jàpp ne développement benn affaire bu extraordinaire la foog nga nekk benn mathématicien bu kale sa bopp bi toj ak yooyu noonu <laughs> pour nga mën ko def <laughs> c'est pas le cas franchement bu doon mathématicien rek man du bu doon mathématicien rek <laughs> du ma loolu affaire yi c'est plus de la logique euh, benn manière d'implémenter la solution ay manière de faire yooyu ñoo yooyu ñoo diffé yooyu ñoo nekk différence majeure bi par rapport ak Sénégal euh, wala par rapport ak Afrique tey ak Europe la moo leen di différencier ci wàllum ay solution informatique loolu moo waral ñun fii suñu solution yi euh, mooy gën fiable des fois entre guillemets noonu laa koy woowee fiable euh, parce que bu nekkee fonctionnalité la donc comme développeurs yi yëpp ah mun nga am 1000 développeurs nga ne leen ñu implémenter la benn solution mais kenn ku si nekk nu koy implémenter day différent. voilà mais ku si ëpp expérience ak ko xam process yi xam concept bi dëgg-dëgg moom solution bu muy proposé mooy nekk solution ba nga xam ne mooy gën a optimale avec euh, la plus grande euh, la plus valeur ajoutée possible. ok non ça c'est imp ça parce que su fekkee ne nekk nga Sénégal euh, quitté dem à l'étranger te nga gis affaire mm. boobu noonu ko tu vois. Mm-hmm. peut-être jamono bi ñu toll nii affaire yi yaatu na ubbeeku na ba léegi am na ay di nga nekk Sénégal di mm-hmm. liggéey en Europe tu vois. Mm-hmm. Mmh. à part télétravail voilà a distance et tout ça di nga mën a imprégné wu ci def mais l'essentiel il faut que nga liggéey si ñaari environnement yëpp pour a xam exactement euh, mmh. différence bi nga xamante ni am na ko ci façon mmh. liggéey bi tu alors même personne yi la même parce que boo demee Europe tey da gis ne entreprise yu bëri ay ay ay ay africain rek nga fay fekk tu vois man nekkoon naa ci ay groupe yoo xamante ni da gis groupe boo xamante ay ñaari ñaar wala benn français souche nga fay fekk quoi tu vois. exactement ñeneen ñi ay naar leen ay sénégalais ay. voilà yeneen nationalité donc yeneen nationalité donc du coup mhm. euh, personne ressource yu benn leen mais façon mhm. liggéey bi ak rigueur bi mooy différence bi. Mhm. alors man li may faral di wax nag mooy Sénégal peut-être dañoo manqué rigueur. tu vois rigueur bi mhm. moo des Sénégal euh, mhm. ci yenn entreprise yu bëri ba tax yenn saa yi mhm. ñuy produire yenn application yoo xamante ni peut-être du fiable à cent pour cent tu vois wala du mel ni mu na mel nit ñi koy def mën nañ ko mais il faut que mu mhm. am coach boo xamante ni mooy euh, mooy imposer rigueur boobu noonu ba gars yi mun ko topp des fois nga dem sax ci benn entreprise indi yenn yenn mhm. technologie wala yenn manière de faire mhm. <laughs> ñu ne dañoo bëgg gaaw am produit bi fini a jot xaalis bi gars yi waa ji fay nañu ba pare saawaay ah, benn technologie bëgg a génnee technologie boobu noonu tegee ko na indi ay affaire yu bees xam nga des manières d'implémenter teg ay process ak yooyu noonu mais au final gars yi sax des fois développeur yoo yooy liggéeyal sax ñoom ñoo ne saa booy bii dafa bëgg lu compliqué quoi <laughs> <laughs> mais imagine imagine on est en et tu vois ah. toujours au Sénégal des entreprises yoo xamante ni ah. tu mm. viens leur dire que non on va utiliser on va utiliser euh, benn repo GitHub tu vois. après ils mm-hmm. bon mm-hmm. non mais du entreprise bi sax mais peut-être ay ay jeunes yoo xamante ni peut-être ay jeunes développeurs lañ mais da gis ñu non non non GitHub non non non on utilise euh, nañ partager code. voilà par clé. voilà. exactement exactement te boo xoolee boo xoolee nii euh, man tout récemment maa ngi bu ma bu maa ngi suivre information ya nga xam ne ñoo am Sénégal euh, surtout ci wàllum euh, élection yi nga xam ne moom la ñuy jublu donc gars yi di wax waxu parrainage naan non logiciel bi da ngay da ngay dugal sa <laughs> da ngay dugal sa say say say parrainage après mu yokkal la ay parrainage wala mu wàññil la parrainage wala ko ñu parrainé parrainé Tamba mu yóbbu ko Fuuta ak yu kenn xamul loolu la pour développeurs yi nekk si dëkk bi sax quoi voilà ma ne non mais loolu fois si ñëpp ña nga xam ne ñoo ngi pratiquer métier de développement. te te pourtant te pourtant boo xoolee ressources yaa ngi en fait Sénégal ay mais surtout gune yi ay dev yu taxaw ñoo fa nekk gune yi léegi fi toll nii développeur yu ngan dañoo fi nekk. mais problème bi <laughs> mooy sunu yi. ah man ah, mhm. man je veux même pas parler mhm. de politique mais problème bi njiit yi. ak sunu mhm. responsable yi peut-être nañ ñu gën jox gërte nañ ñu a jox affaire yi tu vois comme ça ñu wan li nga xam te moom lañ mën ñu may ñu euh, espace bu ñu mën a exprimer woo complètement pour mën a innover pour mën a indi li nga xamante ni euh, valeur ajoutée lay doon pour entreprise bi je pense. exactement donc ba léegi pour des ci question bi am na benn partie ba nga xam ne maa a fàtte parce que yaa may laaj différence su wax naa ci technologie mais aussi différence salariale bi foog gars yi wax si ah, c'est pas ah, salariale bi foog gars yi wax si quoi mm-hmm. parce que euh, c'est pas normal tey euh, nga jël benn ingénieur en informatique avec des années d'expérience euh, nga koy fay la nga xam ne matul sax cinq cent euros des fois biir Sénégal quoi te boo xoolee des fois sax dafay nekk ay entreprise yaa nga xam ne ay entreprise étrangère la ñoom ñooy Euh, euh, délocaliser wu nekk biir Sénégal di liggéeyloo ay ingénieur en informatique ñuy def même bi ak euh, ingénieur ya nga xam ne ñoo ngi France peut-être je suis d'accord le coût de la vie n'est pas pareil donc fii cher na par rapport ak yow li ngay dépenser pour mën a dund par rapport ak Sénégal mënuñu la fay même salaire bi que lu ñu ingénieur bu nekk France mais je pense quand même que au lieu ngay jot ay vingt pour cent trente pour cent par rapport ak benn ingénieur au moins mën nga jot benn cinquante ndax moom non seulement dina mun a euh, développer boppam mais aussi du nekk benn esclave entreprise bi fas yéene nekk foofu noonu donc au final sax moom du épanouir dafay tax moom du mm-hmm. nekk un bon développeur alors que un bon développeur voilà mm-hmm. voilà donc moom foog bopp bi yaatu foog mu bañ am problème social foog mu mun a épanouir foog mu jàppee ni développement bi xam nga sama gagne-pain la en plus je me vois bien dedans mais au final su fekkee moom chaque fin du mois dafay nekk si ay tolof tolof euh, pour mu développer la benn solution bu dafay xaw a nekk euh, benn mm-hmm. problème donc loolu noonu maa ngi ñaan suñu njiit yi gars mm-hmm. bàyyi ci xel képp koo mm-hmm. xam ne entreprise nga nga war a ñëw Sénégal ibbi foofu noonu dëgg la pour start-up yi dina métti ñu fay yenn salaire yi mais ay entreprise ay grande boîte bu ñu déplacé woo ñëw ba foofu noonu di gagner ay marché xam nga di développer ay solution yu rëy yoo xam ne dañ koy utiliser ñu mën ci gis seen bopp mën ci yëg seen bopp quoi mm-hmm. ay non je pense que li nga wax am na solo tu vas ñu nekk à l'aise parce que mhm. franchement ay noble lañ ah tu vois sama ji gars bu dëkk bi mhm. doxee ñun la ah. <laughs> comme ni ko olof di waxee nag di duuf si nag bi xajul ci cin bi tey man xam naa ne a yow mënoon a nekk fi waxtaan fi trois heures de temps duñ pare tu vois parce que on a beaucoup mais euh, <laughs> voilà comme auditeurs yi yenn saa yi aussi gars yi dañuy bëgg déglu rapidement tu vois alors ban conseil nga nga nga bëgg a jox bépp sénégalais boo xamante ni mu ñuy déglu te bëgg mhm. dugg mhm. wala sax nekk déjà ci métier mhm. développement euh, voilà développement alors pour Sénégal yaa nga xam ne ñoo ñuy déglu bëgg ñëw euh, def métier développement bi maa leen di wax ni yéen ci métier de l'avenir kaay leen développement bi mooy métier de l'avenir dafa déjà développement bi mooy benn mbir boo xam ne yow boo ko maîtriser fépp foo dem ci àdduna bi di nga liggéey donc euh, defe naa yoo xam nga si dara nekkoon de France fii nii aussi euh, mm-hmm. fii doo yeewu fajar man en tout cas du ma yeewu fajar te du ma jot benn offre chaque jour damay jot ay offre au final sax yow yaay choisir yan entreprise nga bëgg liggéeyal ak ñan nga bëggul liggéeyal exactement comprendre nga donc dafa nekk benn métier ba nga xam ne boo si xasee ba dugg yow déjà euh, da ngay assurer say arrière mais aussi mu nekk benn métier ba nga xam ne yow boo ci nekkee pour yow nga jël sa propre envol dafay dafay facile déjà am na développeur yi bëri ya nga xam ne fii actuellement ñoom bëgguñu nekk sax en entreprise ñoom lañu fas yéene nekk mooy juste freelance gars yi ko am projet nga woo leen ñu ñëw door ko après nekk auto entrepreneur di gérer seeni mbir donc su fekkee yow tamit freelance euh, nekk loo xam ne ça t'enchante donc mun nga ibbi yow sa propre entreprise par rapport ak benn solution ba nga xam ne yow yaa ngi ciy xalaat yaa ngi koy développé. Mhm. de fur et à mesure nga koy booleeg sa liggéey ba keroog solution bi ba pare. Mhm. nga jëm ko lancer de ton côté. Mhm. donc loolu noonu déjà da lay permettre yow nga mun créer sa propre entreprise mun créer ay emploi recruter ay jeunes ya nga xam ne ñooy liggéey ci yow solution ba nga xam ne moom nga développé. donc développement bi dafa nekk la nga xam ne jàppal ni saa yoo tegee benn pas développement wala vers technologie. loolu moo nekk yaa ngi yokk ay donc ci say laaf. <laughs> <laughs> saa yoo ko tàllalee yaa ngi naaw di nga naaw. non non mais <laughs> non non non non mais ça il faut répéter ça il faut nga répéter ko comme gars yi dégg bu baax a baax a baax a baax non Ibrahima répéter affaire bi ñaan naa la ko rek. dama ne <laughs> dama ne. jàppal ni développement bi ak wàllum technologie bi saa yoo tegee benn pas vers le développement wala vers technologie bi yaa ngi yokk ay donk say laaf donc laaf bi nu mun na mëree bëri ay donk rek saa yoo ko tàllalee di gën a mën a naaw. donc gars yi ñëw leen. non mais c'est extra. extraordinaire parce que tu définis exactement li nga xamante nii moo am. et ah je pense que exemple la boo xamante nii euh, non mais tu da nga garder <laughs> morceau bi gën a baax ci fin bi quoi macha allah. <laughs> ok alors mais Ibrahima lan moo nekk sa mot de la fin euh, avant ñuy tëj épisode tey bi nii. alors euh, d'abord di remercier auditeurs yëpp auditeurs wolof Tekki yëpp. wax dëgg yàlla euh, man euh, benn plaisir bu énorme lay lay sentir actuellement nii parce que déjà euh, xalaatuma woon ni ki concept bii nii dina yegg fii nii nga xam ne actuellement foofu la yegg ma la siy félicité waale bu baax a baax di wax gars yi donc merci pour votre fidélité ci Wolof Tech bi léegi sama mot de la fin mooy sama gars yi mieux vaut échouer mm-hmm. que ne pas essayer quoi. su fekkee am nga benn idée su fekkee yow bëgg nga def benn mbir mieux vaut nga dëggu ci mbir boobu noonu ba au final nga xam ne mbir boobu noonu doxul di nga jàng dara au moins mooy di nga jàng nan la ñuy gérer benn échec ak di nga jàng lan moo waral yow nga échec ci mbir boobu moo gën nga toog ñàkk essayer nan lii non duma ko mën wala non lii yaakaaruma mën dinaa ko mën def donc lépp la nga xam ne idée la dem si à fond noonu noonu la ñuy euh, développer euh, noonu la ñuy avancer noonu la ñuy jëmee kanam. léegi pour sama mbokku développeur yi. Mm-hmm. Euh, sama gars yi développement bi. Mm-hmm. actuellement mm-hmm. bëri na ay développeur quoi. mais tout le temps yow développeur bi tout le temps del aspirer devenir un meilleur développeur. un meilleur développeur pour loolu nag nan lay demee mooy foog nga suivre ay tuto foog ngay def ay pok ay POC boo ko déggee mooy ay projet ndaw ya nga xam ne yow par rapport ak benn technologie mu soo xam ne muy doxee nga ne ok damay jël benn projet supposons nga ne gestion hospitalière euh, wala nga ne donc euh, benn gestion euh, d'établissement nga créer si benn application par rapport ak technologie boobu noonu da lay yoo yow nga mun xam le les bouts et les aboutissants xam nga nga mun a avancer ci technologie boobu noonu quoi donc da leen def ay POC yu bëri mhm. da leen jéem a def ay montée en compétence yi livre di lire euh, supposons euh, clean code donc euh, benn livre la ba nga xam ne man ñëpp laa koy proposé ñu jënd ko am na la nga xam ne tamit mooy design pattern yi pour nga mhm. mun comprendre bu baax la mooy design pattern yi loolu da lay permettre après yenn solution ya nga xam ne bëgg nga ko implémenter mu gën a yomb ci yow donc am na ay livre aussi ci lap la nga xam ne TDD la test driven development pour sama mbokk Java yi nag ma leen mhm. di proposé ñu jënd effective Java mu nekk benn livre ba nga voilà effective Java mhm. non livre bu livre la ba nga xam ne man jàpp naa ni bible la quoi donc c'est pas mal de solution ak ay design pattern ya nga xam ne par rapport ak euh, euh, benn su benn problème dañ lay woon yow nan ngay implémenter solution bi d'une meilleure manière pour nga mun a nekk benn développeur ba nga xam ne i va euh, avoir de la qualité mm-hmm. ou de la valeur ajoutée ci benn projet ba nga xam ne dugg na si. macha allah alors mot de la fin. Mm-hmm. da leen bind ay test. <laughs> non mais non mais t'as raison chaque fois ça va chaque fois da ngay bi gën a baax ci ci fin bi quoi. <laughs> Ah non mais franchement ñu ngi lay ñu bu ah. baax a baax ci li nga accepté ñëw ci suñu invitation bi tey jii ah, franchement mm-hmm. on est vraiment honoré di dalal ñoo xamante nii mm-hmm. seen xam-xam dafa màcc ci li nga xamante ni dañ koy def surtout tey mm-hmm. jii nag ci li nga xamante moom la ñuy wax mu nekk xarala yu bees yi tu vois kenn lam-laamewul sa sa sa sa sa sa sa xam-xam bi nga xamante ni am ko ci mbir mi man mii xam naa ci dara tu yàgg nañ bokk ay projet et tout vois que mm. euh, yaa ngi yéeg beneen niveau boo xamante ni yaa ngi monter mm. en compétence bu baax a baax baax ci yenn affaire yu bëri tu vois et je pense que mm. tey jii loolu noonu euh, je pense que comme ni ko olof di waxee kuy dem moo neex a àndal quoi tu vois mm-hmm. cest à important tu vois et ah, yow tamit bu baax a baax ci monter bi nga xamante ni yaa ngi koy def et di ñaan yàlla suñu borom mu gën a yokk xam-xam bi gën a yokk am-am bi gën a yokk itte yi gën a yokk lépp lépp ba nga xamante ni daal euh, yàlla daf ñuy mm-hmm. may chaque fois loo xamante ni day wees suñ njort des fois bi mun nga am loo xamante ni moom nga bëgg rek mais yàlla moom bu uh-huh. fekkee kontaan na ci yow te bu fekkee yaa ngi def loo xamante ni defoo ko pour sa bopp sax mais da nga koy def mm-hmm. pour euh, partager ko ak nit ñi parce que booy partager aussi jaamu yàlla la tu vois donc yàlla bu kontaanee ci yow da lay may loo xamante ni moo ëpp sax li nga uh-huh. xamante ni moom ngay euh, moom ngay njort mm-hmm. alors Ibrahima fan na la gars yi mun a fekk sur internet alors gars yi mën nañ ma fekk euh, déjà ci YouTube bi. Ah, ah, <laughs> non non non boobu kay mbitt la fa naan kay dev 221 la man kay xam naa ne. <laughs> kay ah, dev 221 ñoo leen ci YouTube bi partagé. <laughs> à part sinon euh, maa ci LinkedIn bi donc euh, mun nga taper Ibrahima Ndiaye. déjà di ma fekk ci LinkedIn bi maa ngi ci réseaux sociaux yi aussi. maa ngi ci groupe Facebook bi. mais pour le moment lancé gu ma sama channel Discord bi. voilà damay xaaragom actuellement gars yi yegg si comme mm, ça. échelons yi gën a mën a taw ak yooyu noonu amul benn problème bu ñuy def lancement channel Discord bi ko di ngeen ko a pas de souci alors aussi que auditeurs euh, ngeen ko suivre ci Twitter et partout mais aussi euh, mën ngeen dem aussi Apple Podcast su fekkee da ngeen utiliser Apple Podcast wala ngeen utiliser Spotify tu vois mën ngeen aussi noter ñu tu maanaam étoile yooyu nekk ci kaw ngeen bës noter ñu tu vois comme ñun aussi dinañu permettre ñu mën a grandir bu baax ñeneen ñi nga xamante ni bëgg nañ découvrir aussi podcast bi ñu mën ko découvrir comme ni ngeen ko découvrir nii di ko déglu nii te euh, yaakaar naa nii am na solo trop te mu ngi leen di jëriñ bu baax a baax j'espère allez les amis merci beaucoup ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah beneen week ci beneen épisode incha allah ak beneen expert incha allah allez merci beaucoup passez un très bon